ci Serigne Mountakha Mbacké xalifu général des Mourides Serigne Amni Modou Mbend Fall xalif général des Baye Fall neuvième édition cant annuel sante Serigne Touba delloo njukkal Cheikh Ahmadou Numbe Xabba ngeen ànd ceeg sen mbokk sen xarit Serigne Amadou Gueye Xasaayid japp nañu bés bi samedi le 18 novembre 2023 ko amal fële ci Thiès ci medina Médina Fall di ci wu ak di ko yëgal waa kër Cheikh Manoumbe Mbacke rawatina waa kër Serigne Abdourahmane Mbacke ku ci mel ni Serigne Salihu Mbacke di xalifa Serigne Abdourahmane Mbacke ak ay rakam ku ci mel ni Serigne Ibrahima Mbacke ak Serigne Xaban Mbacke soxna Mam Awa Mbacke soxna Bintu Mbacke. ci woo village yi wër Thiès tey ay soppe Serigne Ahmadou Gueye xasaay ak mboolem fu soppe nekk rawatina daayira yi jël ko nag daxa jaaliku Serigne Bada Dieng Serigne Mbaye Touré INEFJA Serigne Ma Anta Badiat Serigne Khadim Samb président fondation Thiès solidarité Serigne Samba Cissé Serigne Sidi Gueye ñi ne la ñu ko dara jaale ci wàll góor ñi ci wàllu jigéen ñi ñu jël ko dal di koy daxa jaal soxna Anta Touré ak ñi nga xamante ni bii ñooy soxnay waa kër borom daabaay ci njiital seen jëwriñ Serigne Alpha Ndiaye daabaay soxna nogay naawel daayira sopp xaadim daayira sopp maam jaaxa ak mbooleem daayira yi nekk ci ak li ko wër mbokk yi bis baa ngi noonu muy neuvième édition cant annuel sant Serigne Touba delloo njukkal Cheikh Ahmadou Ndoumbe Xabbaan ànd ceeg Serigne Ahmadou Gueye Xasaay samedi le 18 novembre 2023 bu 17h jotee fële ci Medina Fall ci tali bu bees di ci woon nag ak di ko yëgal mbooleem kuy soppee rawatina ñi nga xamante ni bii ñoom la bokkal xaside yi sëriñ